asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna yi. soxna Mariama na nga def. na def nag. ñoo ngi fi alhamdulilah. naka tàngaay bi. ñoo ngi nii rek sant yàlla. waaw merci beaucoup. naka waa kër ga. ñu si jàmm alhamdulilah. ñëpp a si jàmm. sant yàlla. yegsil bismillah. waay yow. ñëwal ñu seetaan télé. hay. waaw non kii yo madame Laax waaw ah yow madame Laax nii nga def nii moom mooy lan lu xew ma de maa ngi seetaan télé sax ñëwal ñu seetaan kay toog yow ma boobu ba tey yow lay xaar pour ñu dem ko ñoom Xadija laay ray ma ma de di la xaar nga toog nii raj toog nii di seetaan sa télé mel ni ku warta ànd ak nit fenn gis nga de waay waay maa ngi jéggalu fàtte woon naa ko sax sax na Mariama waay jógal waajal sa bopp waay naaj na toogaay toogaay amatul jógal naaj ma xaar ma fay télé bi te ñëw jógal ani Jeynaba sax Jeynaba waaw kay amul parfum bi xaaral soxna Mariama dafa tàng xaaral ñu parfum tuuti balaa ñu génn. dam laa lu xew subhanallah. Ah. yow yëgoo woon xanaa lu yonent bi wax si jigéen buy parfum wu di génn jigéen buy daa am lu ci nekk. yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee jigéen buy génn këram. Mhm. jigéenu jullit parfum wu. romb ay góor grand place yeeg xet gi di leen di xëy mhm. dangaa mel ni kuy njaalo ba ngay demee ba ba ngay wuññeeku sa biir kër bàyyi li ngay wax soxna Mariama ay parfum kese nga njaaloo si ah yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax te suñu diine moo ñu ko sant ñun jigéeni julliti moo ñu ko tere ah yow de boo moom waxee ci mbirum diine dama ci ànd parce que lépp lu ma xam sama diine ginnaaw yàlla yow la yaa ma siy jàppale ah ginnaaw nee nga buñ parfum kon nañ teg nii rek ah. ndax man xaw ma ci woon dara mhm. te ginnaaw yow tamit sama diine lépp lu ma si jot a xam ginnaaw mhm. yàlla yow la mhm. kon boog dama lay fekk si rek waaye nag bu ma gisee koo xam ne moo la sut aliwa incha allah ah dinaa ko laaj mu gën may leeral kon tey ñoo daw gaaw balaa ñuy lii daa mel ni jël nañ temps de waaw ñu ñu dem gaaw sa yow moom sa àndandoo dafa métti trop man ngi topp télé bi rek toog topp télé bi rek les vendredis de. non ci biir. daa def ci mbaar yooyu maire yeg yooyu. fi mu nekk nii ñëpp ci biir. ñëpp ci biir la. macha allah. Ah, <laughs> torop ëpp na. <laughs> mooy loolu nag bu ñu demati fenn. <laughs> man de damaa féex. ok ah soxna Mariam waaw daa mel ni oustaz eh, ngi nii de. Ah, macha allah daa mel ni woote yàlla gën a gaaw gis nga ñu ngi doon wérante léegi far oustaz ñëw maaleykum salaam. yow oustaz alhamdulilah sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñoo ngi si jàmm naka waa kër ga. ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah sant yàlla. alhamdulilah da ngeen doon doxantu. dañ doon doxantu am fi ñu doon dem nii. ah dëgg la kay dëgg la man ak soxna Mariama. ah dëgg la kay dëgg la kay waaye de dafa am lu ñu doon wérante léegi ñun daal dañoo bëggoon génn léegi man ak soxna Mariama ma woo sama doom bi ne ko pour mu jox ma parfum bi ma laal parce que dafa mhm. tàng mhm. soxna Mariama nag am na lu ma si wax baaxee ma si nee na ma jigéeni jullit buy génn warul parfum mhm. ndax bu parfum génn mi ngi mel ne mi ngi njaaloo ma ne ko ah loolu moom ëpp nay wax di loolu ma ma su ma koy xam bi ma juddoo ba léegi dëgg la dëgg la ma woon nag bu ñu génnee bu mhm. buñ gisee koo xam ne oustaz la wala ku ñu ëpp aliwa mhm. incha allah ñu laaj ko mhm. fan ñu génn rek di dem ah. yàlla wane la ñu ak yaw dëgg la ma ne woon rek nañ ci profité ñu laaj la lan la ci diine wax euh, loolu Mariama wax la sax dëgg la ab xadis la boo xam ni ñu ngi ko jëlee ci Abu Musa al Ashari yi Abu Musa al Ashari yi def ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee nee na bu bu ci jigéen rek maanaam jigéen jum mën a doon ci ju jigéenu jullit boo xam ne laal na parfum nee na génn ngir góor ñi di xeeju ca xet ga nee jigéen jooju mi ngi ci njaalo noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe dëgg la nag buñ la ko waxee dina xaw a yéeme tuuti ni waaw loolu dina rëy boo parfum génn yow jigéen ji dañu lay dóor téeméeri yar su fekkee célibataire ga mhm. wala ñu ne dañ lay rey su fekkee marié nga waaye nag xam nga yonente bi alayhi salaatu salaam daf ni doomu aadama cëram yi benn bu ci nekk dafay njaaloo mhm. lamiñ mhm. njaaloom mooy muy wax masalan nekk di wax ak jigéen masalan naan ko su ma la jàppee su ma la kiyee nii la nangamee yooyu njaalo lañ koy atte baakaaram njaaloo la bu dee bët la nga nekk di seetaan vidéo bi wala nataal yi wala jigéen romb la nga di ko xool mhm. xoolu bànneex loolu it dañu bindal bët bi ba bàkkaarub njaaloo mhm. dégg nga ko mhm. ko defee nag jigéen ji parfum boobu mu parfum wa génn nag day attirer attention doomu adama yi surtout góor ñi ñu di ko xool su ko defee nag ñooñee dañu bindal bàkkaaru njaaloo kan moo ko sabab soxna si looloo tax yonente bi aleyhi salaam ñu ko yow it am da njaalo am bàkkaarub njaaloo loolu mooy bi ci njëkk te xam nga cër yooyu dañ leen laaj yowmal qiyaam yàlla mu ni al yawma naxtimu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibuun loolu moo tax nag yonent bi dañu wattandiku loolu mel noonu ndax cëri bët yi mën na cee njaalo sax man na attiré parfois mën na neex neexee goo xam ni waa ji mën na wax ak yow wala mu topp la wala yéen mel loolu yonent bi ci tari mooy bi ci jëkk ñaareel ba mm, ndey penda bi gën a yéeme sax Abu Hurayra te yàlla na ko yàlla gërëm daa mas a toog comme comme jàkk ji nii rek ci yoon wi moom ni ngeen ma fekkee ci yoon wi nii rek moom dafa toogoon ci yoon yi moom Abu Hurayrata mm-hmm. ci yoonu jàkk ji daal mm-hmm. benn jigéen ci jigéeni saxaaba yi jógee këram ñëw di julli si ci jàkk ji mm-hmm. léegi ngelaw li ni mu bare noonu daal di ëpp bi ngelaw li di ëpp rek Abu Hurayrata am na parfum bu bu ko xeeñ Abu Hurayrata ni ko eh yow jaamo yàlla bu jigéen bi waaw ma ndax ci jàkk ja nga jëm ndaw si ne ko omo koy jàkk ja laa jëm mu ne ko parfum bi ma xeeñ noonu du yaa ko Mm-hmm. ndaw si ne ko waaw Abu Hurayra ne ko dellul ca kër ga nga dem sangu ji ba set maanaam nga raxas parfum ba mu denc ci Abu Hurayra ne ko ndax kat man dégg naa yonent bi yàlla bi alayhi salaatu salaam mm-hmm. naan bépp jigéen joo xam ne laal na parfum génn jëm ca jàkka ja su mm-hmm. jullee borom bi di ko nangul ak jullee dégg nga ko même bu dul woon njaalo ga sax lee jar na jigéen jullit bàyyi parfum dégg ko ba ca des mooy xam nga parfum dafa bokk ci li gën a rëy ci jigéen di ko bégalee boroom këram mm-hmm. Mm-hmm. dafa bokk ci taari jigéen yi gën a rëy mm-hmm. ndax boo xooloon jigéen ñi ñëpp wala boog ñi ci ëpp bu ñu tëdd nelaw li ñu njëkk a def mooy jël parfon parfum néeg bi parfum seenu yaram ba xeeñ kon loolu mi ngi bokk ci taar bi gën a rëy ci jigéen yàlla nag def ni wala yubdiina zinatahunna illa li buulatihinna yàlla ci alquran bu ne bul def rek loola def ko bàkkaar la defal ñàkk koo def bàkkaar yàlla nag def ni jigéen ñi bu seen taar yi mukk di ko wan keneen ku dul seen jëkkër loo tax ñu ne jigéen yow booy génn bu laal parfon mhm. génn noonu rek dem mhm. waaye su doon ne nag da ngay dem ci say mbokki jigéen tam wóor la ni sa kër ba fa nga jëm doo romb benn góor doo romb benn grand place góor ca jigéen ñi rek nga jëm ca nga yem. Mhm. nee na amul problème mën nga ko laal. d'accord dégg ko de. dégg naa loolu loolu daal moom loolu la ci ah, ah, ah, na bu baax jërëjëf leeral leeral nga aussi bu baax macha allah yal na yàlla fay amiin yaa rabbi ah kon boog dégg nga ko soxna Mariama nuyul ma njaboot ga rek incha allah dinañ ko dégg waaw kay dinañ ko dégg njaboot jërëjëf asalaamaaleykum saxtullah aleykum saxtullah